waaw soles ndaje bi li ko wëndu mooy journée de la femme comme niñ ko waxee rek ndax ku ne xam na ni mois de mars mooy le mois de la femme te ñun chaque 8 mars dañ daan organiser 8 mars te comme ak contexte Covid bi nga xam moom la ñuy dund lëmbe àddina bi yëpp lëmbe Sénégal moo waral tey ñu randal sunu journée de la femme muy le 8 mars indi ko tey le 22. waaw tey ji nag li tax ñu koy magnifier tey loo xam ne dañ koy def chaque année la mu jëg ñu lool te ku ne jigéen xam ne jigéen ñi ay jàmbaar lañu surtout jigéenu réseau des femmes de Dieuppeul Derklé ndax jigen ñu am pass pass lañu jigen ñu mëna a liggéey nangu liggéey takk seen ndigg wa dem ak seen doole nak ndax lépp lu ñuy def ni ci suñu ñak lay génné vraiment ma leen rendre hommage ci journée bi di leen rendre hommage à toutes les braves dames du réseau des femmes de la commune de Dieuppeul Derklé ma ngi leen rendre un vibrant hommage di leen remercier si seen pas-pas seen liggéey ak seen fulla ak seen fayda ak seen détermination ma leen encourager lu bare bare tey sunu journée bi nag c'est un journée très spéciale spéciale ci ban côté spéciale parce que tey action sociale lañ jóge lépp loo xam luy social moo ñu tax a social bi nag ñu ngi ko jëmale si suñu école yi nga xam ne suñu doom yi ñoo fay ah ci toilettes yi nga xam ne ku ne xam na toilette école yi ni ñu mel ñu ni nañu produire 500 litres au javel jigéen jàmbaar yi macha allah produire ko ñu ne nañ ko def ay kees boole ko ko ay masques jàppale sunu njaboot yi ci biir école bi ah yàlla gën leen sàmm aar ci feebar bi nga xam moo lëmbee àddina beeg yëpp. ñu jëm ci mulee à mil yi moulin à li ko waral mooy ñun dañuy def ay formation te formation yi jot a def dafa bëri céréales locales da cee bokk ah, leadership partagé tam bokk na ci. Euh, le fruits et légumes transformation fruits et légumes bokk na ci liggéey boobu ñuy liggéey nag chaque fois di biir centre Derklé bi yàlla def chaque fois nag commune Dieuppeul Derklé bi di ñu gis monsieur le maire bi nga xam ne mooy Cheikh Gueye ci accompagner chaque fois ndax c'est grâce à bu mu lay ñëwee ndax gis jàmbaari jigéen yi nga xam ne chaque fois day ñëw ci centre bi di la rendre visite di leen xool ak seen i coon ak seen pas-pas ni ñuy yëkkatee bagage di yóbbu ba marché Castor mu ni kat war naa leen mën a jàppale jàppale ci kaw lan moy indir ñu ñaari machine walukaay xam naa moom du yam fofu ndax mom fi mu ne bëgg moy ñun ñu genn percé ñëpp gis ñu au niveau international ñu xam ci li ñuy liggé ndax tay ji réseau des femmes c'est un GIE dëgg la mais dañoo taxawalat benen association ci biir réseau des femmes bu tuddu association des femmes pour le développement et la solidarité lepp ci dugal suñu loxo ci lepp lo xamni rek lu jigéen di yëngu la dugal suñu loxo ci suñu njaboot njabootu jigéen yi nga xam ñoom la ñu njaboote di ci gis mère de famille yoo xam ne macha allah dinañ dem ba dootuñu mën a jàppale seen njaboot ci njàng ñu ne ñu réseau des femmes nañu jug taxaw taxawaay bu rafet ci côté boobu dinañ gis aussi ay xale yu jigéen yoo xam ne ay mariage précoce la ñu am ñu jàppale leen ñu def formation former leen wan leen yoon bi ñu liggéey di nga gis aussi ay xale yu jigéen yoo xam en déperdition scolaire lañu nekk dem nañ ba jàngatuñu xëy na jàng nañu mën mënoon nañ jàng dem ba benn niveau yam fa mënatuñu dem ñu ni nañu lëkkaloo ci école yi nga xam ni mooy école de formation yi nekk dans la commune wala yi nekk aussi en dehors de la commune dem waxtaan ak ñoom xool nu ñuy wàññile ñu mën a dimbali xale yooyu jàppale leen. wan leen yoon bi ñu dem vers de l'avant waa suivi lay doon à lañ ñaan lañ def ça c'est une première le réseau existe depuis 2015 depuis 2015 5 rendre hommage au passage foofu suñu présidente réseau des femmes bi nga xam Adja Maguette Adama Ngom nga xam présidente d'honneur du réseau des femmes ndax que nous réseau a pérenniser sociale pérenniser seulement dans la commune peut-être commission sociale la commission éducation mi commission waaw macha allah dugal nañ ci xaalis nag dugal nañ ci xaalis xëy na mënumaa tudd som bi mais dugal nañ ci xaalis bu takkoo takko takk si suñuy doole nag si suñu ñaq